ñu ngi lay fay Ibou Diouf di nuyu mbokk téléspectateur u télé Futur Média bisimila leen ci Tambacounda situation bi limu joxe moy ci jamono ji ah, gannaaw ki nga xamni mom moy euh, colonel commandant zone militaire numéro 4 def na waxtaan fego kak euh, taskati xibaar yi. première mesure bu ñu jël mooy suñu cantonnement militaire manifestation dootu fa am gis ngeen Tambacounda fofu lañ ci di balé artistes yépp foofu la ñëw mais semaine boobu la arrêté lepp ne leen du amati tànk li jeexul wala ñu def aussi Yara Kédougou wala ñu def aussi fale à Bakel doolu ci ne depuis aussi bi mu amee ah comme ñun armée nationale ñu xam suñu médecin mu ngi liggéey ak médecin régional pour xool nañu mun a lan nañu mun a jëlee mesures au niveau de la région bien sûr mais au niveau aussi du cantonnement pour ñëpp mun a nekk parce que suñu cantonnement yi ñëpp a koy fréquenté surtout suñu infirmerie bi pour jàppale ñëpp parce que xam ne ne xeex bi xeexu ñëpp la voilà li may mesure active yi maintenant y a les mesures passives yoo xam ne dañuy teg suñu cantonnement yi foo ñëwee ah dañuy tegal euh, foo femme mën nga jaar raxasu foofu suñu biir aussi cantonnement comme dañu bëri aussi fu nekk euh, fu ñuy wax ay dortoir fu ñuy wax ay mess fu ñuy wax ay réfectoire loolu yëpp aussi dañu veiller pour que voilà lépp ku fay dugg da ngay xaas de temps en temps dañ leen di def désinfecté. bi ñu yeggee ci Neteboulou ki nga xamni ne moy mooy maire bi di Issa Signaté and ci ak Dieynaba Bomel Diallo ñom indi nañu ay ndimbal jagleel ko askan wi ndaxte gis nañ ni ci bërëb bi nga xamni mo faré ci frontière rawati na ci Neteboulou ñooñu fokk ñu jappalé len xam ne sax suñu ñun suñu village yi ak village gambien yi ñu ñoko séparé. 13 km la donc euh, mais ci 13 km yi am 8 km yu xamné koku ndox la donc ndox bobu ñi ñi mën nañ ko pratiquer bu dee eh, eh, yoon amul ci kaw amul ci suuf nit ñi mën nañ jaar ci geej gi ñi am problème bobu ñi ngi koy dekk ñi ñi ñi ngi commencé di dugg ci pirogue pour dem doxé sen soxla parce que comme part d'autres frontières bi dañ ko tej ñu arrêté ko mais aussi ñu mëna autorité fi ak fi ak fii ñu ci di jaar loolu ci aussi euh suñu unité bu nek Bakel ak ses embarcations Euh, démb rek la mujjé def patrouille ci fleuve bi pour contrôler ndax pirogue yi ñu nekk ñu ci jaar diggante ñu nag Mauritanie effectivement def nañ ko démb am nañ euh, prévés yi ñu ñu mos ñu mos a euh, gis foofu voilà jël nañ leen arrêté nañ leen. di président association régionale chef de village yi mom itam en même temps moy chef de village bu nété bulu di Mamadi Signaté mom aussi ñaax na askan wi nañu top tektal yi. seetal leen sa bopp. loolu yomb na trop indi nañu saabu indi nañu madaar indi nañu ndox indi nañu eau de javel ku nekk am na ten sa biir kër donc rotal ndox rek nga teg saabu ku ñëw nuyu la mu raxasu ku jógee ci douche bi mu raxasu kuy lekk mu raxasu c'est très simple su fekkee loolu rek mooy garab bi je crois que ñun dañuy dégg jànkaro bi mais du du ex bi. ah Ibou Kane di fàttaliku rek yow bi nga gëjee Tambacounda ak néegi ñi ca campagne électorale ba la waa abattoir ñi ngi lay laajte. fi ñu jeexalee mooy liggéey bi ñu ngi ci ànd ak suñu doyen Amadou ju Ams loolu nag moo ñu yombalal ci wàllum tournage bi réalisation lu jëm ci wàllub miroir Covid 19 ci Tambacounda.